mbokk internet yi safoo setaan AGT news daleen ak jàmm suñu jàngatu tey bi abonné leen ci suñu chaine saa su ne ngeen di am ay xibaar ak i jàngat yu wér te wóor. maître Clédor Ciré nekk kenn ci avocat yu Sonko moom nag daal dinay addu ca convocation ba nga xam ni moo ñeel Ousmane Sonko ak Adji Sarr ngir confrontation bi nga xam ni war nañ ko def ñeel seen dossier moom nag dal dina ciy yëkkati ay kàddu ndax nee na. li nga xam ni kii di doyen des juges daal dina koy def moom daf ko rafetlu bu baax a baax ndax bu fekkonte ne defu ko waa parquet maanaam procureur ak i ñoñam dañoo naroon a guddal dossier bi di ko fi tey te confrontation bi bokk na ci li nga xam ni procédure bu jaar yoon la ngir Ousmane Sonko ak aji Sarr daal di janoo ñoom ñaan ñëpp fas yéene wax ku nekk sa morom dégg doyen de juges itam daal di dégg ñu mën a xam mbir mi fu muy mujjee. ñaar moo ci am fa la ñuy ah, ma xam Diallo daal di classé dossier bi sans suite def ko non-lieu total wala mu daal di koy yóbbu procès public maanaam audience boo xam ni ñëpp dañ ciy teew journaliste et tout le monde bu ci nekk da ngay mën a am xibaar ba nga xam ni moom mooy tukkee ci boobu la audience te dara dootu fa nëbbu lu ni mel nag Ciré Clédor Ly daal di koy rafetlu bu baax a baax ne nag waa parquet ñoom buñ sañoon mbir mi du mës a jeex fii lañ koy téye rek ngir daal di xañ Ousmane Sonko lépp lu jëm ci wàllum nekk 2024 bii di ñëw lu ni mel nag mënut a ñàkk ci réew mi waaye Adji Sarr ak Ousmane Sonko seen jano mel na ni maître Ciré Clédor Ly am na ci yaakaar bu baax a baax ñoom ñaar bu fekkente ne daal dinañ jàkkaarloo lépp dina leer sénégalais yi dinañ am exactement des informations claires et nettes par rapport ak la nga xam ne moo dox seen ab diggante. lu ni mel nag moom la ñëpp di xaar moom la ñëpp di sàkku itam pour un Sénégal meilleur pour un Sénégal de paix ndax kat ak Adji saar bu fekkente ni dem nañ confrontation lépp ñu daal di koy leeral dina tax sénégalais yi mën a nekk ci jàmm waaye itam ñu mën a dem ci leneen loo xam ni mooy amal njëriñ réew mi bañ a continuer tout simplement ci loo xam ni dafay ñeel wàllum dossier Sonko ak Adji saar nga xam ne saa su nekk ñu ngi ciy sonal sénégalais yi ba tey mënuñu cee génn ndax wax ji ba léegi moom la ñëpp di waxtaanee nekk loo xam ni kenn xamut lu mu doon kenn xamul ban ussi dañuy jaar ngir daal di ciy mën a génn Adji Sarr nee na Ousmane Sonko koo Ousmane Sonko weddi lu ni mel am itam yeneeni ay mbir yoo xam ne dafa ñëw laxasu si comme la nga xam ne mooy rapport bi nga xam ne rapport interne bu gendarmerie nationale la ñu daal di koy def tudd ci ay nit ñoo xam ne dañoo laale ci dossier bi daal di comploter contre ki nga xam ni moom moo di Ousmane Sonko am ci itam benn médecin boo xam ni mi ngi wuyoo ci turu docteur Alfousseyni Gaye moom mu ne kii di Adji Sarr di jiiñ Ousmane Sonko lu jëm ci wàllum viol amut lenn loo xam ne seq na ko ak góor ci 48 heures yi nga xam ne moom moo mujj en plus de cela moom la nga xam ne moo di ab ndawam ba mu ko ñàkkee yàgg na ndax dafa am li ñuy woowee perte ancienne de l'hymen lu ni mel nag mooy xibaar yi nga xam ne moom moo fi tegu ñeel ki nga xam ni moom moo di Adji Sarr ak Ousmane Sonko loolu yëpp la ñu war a dajale ca bureau doyen des juges daal koy waxtaani loolu yëpp moo tax ki nga xam ni moo di Ciré Clédor Ly nekk avocat ci Ousmane Sonko am yaakaar que ni li nga xam ne war naa am muy confrontation boobu le dina nekk loo xam ni dinañ ci am issue bu leer nañ par rapport ak dossier bi nga xam ni moo ñeel Ousmane Sonko. lépp loo xam ne nag dina am ci biir bureau doyen des juges dina nekk loo xam ni avantage yu dossier Sweet Beauté la ndax sénégalais yëpp bëgg boobu lépp dossier jeex sénégalais yëpp ñoo bëgg a xam exactement lan moo ci xew waaye lu ci mënti am il faudra que justice daal di def liggéeyam ma xam jàll nag lenn kese la mën mooy déglu leen ñoom ñëpp ngir xam kenn ku ci nekk lan ngay toppee sa moroom ak lan ngay indi comme élément de preuve ñu daal di koy confronter xool ndax dañ koy yóbbu procès wala boog dañ koy classé non lieu total lu ni mel nag moom la sénégalais yëpp di xaar ndax kat bi la dossier mi ngi commencé di sonal nit ñi yàgg na lool te sénégalais yu bëri nee nañ ñoom dañoo sonn ci bi lépp dossier amatuñ loo xam ne ab intérêt buñ ci am la au contraire ay jafe-jafe donc la bi lépp dossier di jur ay coow kese la jur ci réew mi indi ñoo xam ne ñi ngi disparaître te kenn xamul lu mu doon ñu bëri naan dañoo laale ci mbir mu ni mel comme ku ci mel ni Ahmed Suzanne Camara ak kaddu yi mu yëkkati jëmale ko ci ñaari gendarme yi nga xam ne dañoo réer ne dañ leen a fàtt ndax dañoo laalee ci dossier wu Pape Alé bi te Pape Alé Niang Ousmane Sonko Pape Alé Niang dossier ba mu yor moom la Ousmane Sonko yor kon kat bu waxee loolu dafay mel ni ci dossier Sweet Beauté bi loolee ab conséquence la ci mois de mars 2021 am na lu toll ci fukki nit ak ñeent ñu ñàkk seen bakken tout simplement ci ay affrontement nga xam ne amoon na diggante population bi ak takk der yi yu ni mel nekk yu bëree bëri yu dajaloo am ci itam yeneen dommages collatéraux yoo xam ne saa su ne ñu gis ko ci biir assemblée nationale saa ne li ngay dégg mooy lan ay coow yoo xam ne Ousmane Sonko lañ fay tudd ay coow yoo xam ne ay camp waa Askan Wi ciblé leen si te du jugee ko fenn fu dul ci pouvoir lépp li ko waral du lenn lu dul la nga xam ni Ousmane Sonko ak aji Sarr daal nañ koy seq mu jur ab coow ci réew mi. Bouba Ndour wax na ko yàggul dara mu ne assemblée nationale bii ñu nekk nii Adji Sarr moom moo ko waral ndax dossier wam ba moo jur lu ni mel duñ ko weddi ndax dossier Sonko ak aji Sarr bi la mu indi ci réew mi bëri na lool lim fi indi ci ay jafe-jafe kenn mënu ko natable ndax bëri na bëri goo xam ni. ñu ci bëri daal dinañ ciy loru dara ko lu dul loo xam ne mën nañ koo clarifier il suffit tout simplement justice def liggéeyam ca na mu waree te lépp loo xam ne dossier la laalee ak mbir mu ni mel ñu daal di koy traité ca na mu waree loolee mooy la nga xam ni dina am le 6 décembre 2022 bi nga xam ni ci la ñu nekk diggante Ousmane Sonko ak aji Sarr aji Sarr mooy ki nga xam ni moo porté plainte Ousmane Sonko Ousmane Sonko ne dañ koo comploté mbir mi faw mu leer ndax sénégalais yi sonn nañ ci Sonko génnee na ci ay mbir teg ko sur la table lam ca génnee du leen lu dul rapport bu gendarmerie nationale bi nga xam ni ñu ciy wax ni ki nga xam ni moom moo di Serigne Bassirou Gueye buñ sukkandikoo ci kàddu yi Ousmane Sonko moom Serigne Bassirou Gueye moom général Moussa Fall ak commandant Mbengue ak ñeneen ñu ci cité. ñoom ñoo def li nga xam ni moom mooy complot bi ñeel Ousmane Sonko ak Sweet Beauté Ousmane Sonko Sweet Beauté dañ koy dégg fële ci biir assemblée nationale mooy li ma leen doon wax léegi nii ci dommage yi nga xam ni le dossier te war a leer daal dina koy jur jugee ko ci ba ngoom tax moom jàpp na ne biir assemblée Ousmane Sweet Beauté la fa war a tudd ngir ñee di mer moom mu nekk ci jàmm te amul benn njëriñ bu mu amal les sénégalais la nga xam ne nag am na ci mooy que ne rapport boobu war nañ koo instruire ndax képp koo xam ne rek tudd nañ la ci mbir mu ni mel war ngaa a ñëw devant la justice gis daal di setal sa bopp bu ko defee ñu xam ne kat Sénégal gi waruñu koo caaxaanee Sénégal gi waruñu koo fowee ndax nag bu fekkente ne réew mii ñu nekk wanatuñ fee atte ab nit mu jaar yoon war nañ xoolaat suñu bopp bu baax a baax xam ne kat ñi ngi ci erreur ñi ngi def loo xam ne ëllëg dinañ ko rëcc bu baax a baax waaye nag sénégalais yëpp ñi ngi xaar confrontation Sonko ak Adji Sarr ndax dina nekk loo xam ne dina jur jàmm ak salaam ci réew mi ndax bés bu fekkente ne justice daf na liggéeyam ba leeral lépp ba mu leer nañ sénégalais yi dinañ am aafiya sénégalais yi dinañ noppalu ndax dossier bi lee yàgg na te yàggaay gi arrangé wul benn yoon les sénégalais ndax ci pression la dëkk ci coow la ñuy dëkk ak werante saa su nekk te war nañ mën a am lu leer nañ ci mbir mu ni mel képp ku ci laale woon nag da nga répondre à la justice lu ci mënti am mooy que ne procédure bi dina continuer nag lépp dafa war a leer Ousmane moom nee nañ koo comploté ña nga xam ne tudd nañ leen nañ ci ñëpp nañu ñëw setal seen bopp bu fekkente ne respecté nañ sénégalais yi rek respecté la mémoire des quatorze personnes yi nga xam ne génnoon nañ àdduna ndax mbir mu ni mel nañ clarifier bi le dossier bu ko defee ñu am exactement des informations claires et nettes yoo xam ni sénégalais yi dinañ ko am seen xel daal ñu xam ne kat justice def na ab liggéeyam képp ku ci nekk rek la nga ca defoon ca ab ñaawteef daal nañ la koy condamné bu ko defee ñu mën a xam ne ci pays de droit lañ nekk réewum démocratie la waaye réew moo xam ne AGT News mbokki internet yi safoo setaan AGT News li moo nekkoon suñu jàngat abonné leen ci suñu chaîne saa su na ngeen di am ay xibaar ak i jàngat yu wér te wóor